xam nga Libye ñun ñoo ko invité ñun ñoo ko jël en charge bu ñu ñëwee ñun war nañ aussi mettre leen dans de bonnes conditions moo tax ñu bokk ñoom hôtel ñun ñu nekk premier ak deuxième ñoom ñu nekk quatrième étage euh, ñoom seen délégation bi xawut a bëri ñu ngi leen di mettre dans de bonnes conditions pour que ñoom itamit moo nekk adversaire bu bu taxaw parce que mënuñ jël rek indi ay indi adversaire bu nga xam ne nooy neex la ñu a mettre dans de am ni ëllëg dana mën suñu xale yi jàngat ci dara ñoom itamit rafetlu nañ vraiment nañ leen teeroo Euh, jàpp ni euh, match bi dina am ci jàmm ñoom entraîné nañ tey comme ni ñu entraîné utiliser infrastructure yi jàpp nañ ni le huit prochain incha allah danañ am lu nga xam ne li ñu ut ci match amical bi danañ ko am li entraîneur bi di ut ci match amical bi dana ko am bu soobee yàlla. waaw mën na wax ne itam fédération Congo jàppale nañu bu baax ci li ñuy liggéey li fii parce que fii ñoom ñoo ñu fi woon waaw ah, lu bëri fii ñoom ñoo ñu ji omat woon ñu ko c'est vrai nag euh, luy koppar Sénégal a koy génne waaye lu bëri daal ñoo ñu omat jàppale ñu ba tey nii ñu ngi jàppale jàppale ba nga xam ne ñëpp teg nañ ci bët. ñu war a football ak ñoom le 11 ni ñoom itam ci biir Brazzaville hôtel bu nekk biir Brazzaville euh, fii lañ koy joué fii ci Congo te ñu nekk fii muy seen réew Euh, loolu tamit dana am leneen lu mu yokk par rapport marché du bien nga xam ne entraîneur bi daf koy ut parce que entraîneur bi lu mu bëgg si ñaari marché mooy def xale yi ci cadre de compétition bu nga xam ne dañuy jongante mu mën ca jël ay jàngat mën a rectifié wu balaa ñuy dem le 12 te ñu war daje le euh, euh, le 15. ma jàpp daal ñu war nañ sant yàlla haut Sénégal yëpp ñun ñëpp ñu nekk benn jàppante xam ne réew mi ñoo ko bokk te ñu nekk Sénégal ak ñu nekk fii ak ñu nekk feneen ñëpp booloo nekk benn xam ni réew mi moo ko soxla te bu fekkee ñu ngi jàpp ni di liggéey gëm yàlla yàlla mën nañoo may ndam